gone ni ñu wëlbatee nag làmbaayam ñoom it noonu la ñu wëlbatee seen làmbaay su ma yedoxoo topp dana ñaan ka daalika naka noone su ma yan sarifu topp dana wëlbatiku waaye yan sarifoo ne te ñu wëlbatiku wëlbatiku mooy ñibbi rek dellu ci kër ga day wane ne suñu defee noonu ba ñaan ba noppi rek lépp jeex na ñu wëlbatiku dellu seen kër nag te yaakaar yàlla nag mu nangu seen ñaan sotti leen xewal gi wala yu kabiru du kabar fiihaa ca moom wala fil xusoofi du caageenu julli muur xayra takbirat ihraamin na rek kabaru xarmal wal xafdi ak sëgg ga wa rafi ak siggi ga wala azana te déet noddu fiihaa muy nekk ci moom wala iqaamat du caageenu liqaam te bañ nga defee nag daa mel ne jullit korité mbaa tabaski nga xam ne da ngay kàbbar ab lim ci raaka bu ci nekk leen nag moom boo dee julli jullit mbaaw ak ba ngay julli jullit muuru jant mbaa muuru allahu akbar ya nga xamoon ci julli rek moo ciy am ba tey mooy boo kàbbaree kàbbar almal daal da nga def boo sëggee kàbbar boo siggee kàbbar ba kere ngay noppi rek ba tey amul nodd amul liqaam ndax nodd liqaam moom ba tey julli farata rek moo koy am baabu ma lii mooy buntu la nga xam ne yufalu def na ko def bil muxtadari ci ku ñu teewal ab dikk wa fi xaslil mayiti ak ci sang ab néew xaslu mbaa xuslu wa kafanihi akuk sàngam wa taxliitihi akuk gëttalam gëttalam mooy defal ko lat ko leñ defal ko lat ko leñ wa xamlihi akuk yenoom yenu gi nag moom tudd na ko nii ci tarjama ji maanaam ci njëlbeenu bunt bi waaye taxul na mu wax ci dara ci biir ko tudd rek foofu wa dafnihi akuk suulam kon daa bëgg wax ci bunt bi ku dem a dem ba ñu gis ci moom muy bëgg a faatu gis nañ ci moom mandargay faatu daal nuñ ko war a nuñ ko war a defal ak nu ñuy sange ab néew ak lu ci aju ak càngaay laag lat ko lañ dañ koy defal ak surga gi demee noonu la bëgg wax ci bunt bi wa yustahab bu def na sopp istiqbaalul xiblati jëmale xibla bil muxtabari ko ñu teewal ab dikk koo xam ne mandargay faatu feeñ na ci moom ba ñu xàmmee ko mel ne dafa ne xaaj bët yi mu jëm kaw ba noppi ji bi ñaq tegtal la ci ne kon màndargay faatu feeñ na ci moom daañu sopp kon ñu jëmale ko xibla jëmale xibla gi mooy dañ ko tëral ci wetu ndeyjoor tam jëm xibla wa ixmaaduhu sopp nañ ak gëmmalam gëmmal bët ya isa qada ndeem faatu na ba noppi maanaam bu faatoo ba àggal daañu sopp bët yi bët yi na mu ne woon xaaj ñu sëlam ko ba bët ya delluwaat ba tey sopp nañu ñu jël ab morso takk ko ca bopp ba takk ko ca ngaamu suuf wa ndax na gimiñ nga ubbi ko woon ubbiwaat ñu sopp itam kooka góorgóorlu ci gaaw nooyal cër yi bu baax a baax kon na gaaw jàng yeeg loxo yeeg tànk yëpp rek fu ci nekk rek mu di ko bësa ko bësaat di ko delloo ko delluwaat di ko donk ko tàllal ba lépp nooy nooyaay boobu mooy tax na mu wéy ci nooyaay boobu bu ko dee sang sang gi ak wëlbati gi lépp yomb bu ko defee lépp dee kàddu rek benn yoon mel ne ndaawoo koŋ mel ne ndaawoo koŋ wayu laqamite defi ko sax laa ilaha illallahu laa ilaha illallah taamu nañu jamono ñu tolloo ci ñu gis ci ma mandargay faatu nga dend ak moom di wax laa ilaha illallah te bañ ko ni wax ko yow bëgg rek nga dee na moom di ko wax ndax moom itam xelam dem ci ndax yonent bi ne woon ku loolu mujj ci aw làmmiñam mu dem àjjana moo tax ñu bëgg kon nga di ko wax ci wetam rek ndax loolu mujj ci aw làmmiñam su ko waxee itam nga bàyyi nag léegi ndax loolu mujj ci aw làmmiñam su waxaatee wax adduna nag nga delluwaat di waxaataat laa ilaha illallah ci wetam ndax moom bëti ko waxaataati ko rek ñu bëgg rek mujj ci aw làmmiñam waaye nag bul ko ne wax ko ndax neen yooyu jamono day fekk muy xëccoonteeg seytaane seytaane naa ko seytaane naa ko waxal ne man day dexe naa ci diine yëwoon mbaa nasaraan su fekkee mën naa ko duma ko wax nag dañu bañ fekk bu fekkee yaa ngi ko wax naa ko waxal laa ilaaha illallaah bu dee duma ko wax nga defee ne kon yow lay wax naa duma ko wax nga ñaaw njortu ci moom su fekkee ne moom seytaane mën naa ko neel dee naa ci diine yëwoon mbaa nasaraan boo dee moom lay tontu di ko wax naa ko duma wax loolu mel noonu moo tax ñu bañ nga di ko wax naa ko waxal waxal yow bëgg rek nga toll ci itam di ko wax rek noonu xelam nekk ci nag ko defee moom itam mu wax ko in qudira dem ataneef na xala an yakkoona ci mu nekk taahiran di aji laab wa maa la nga xam ne xale yi nekk na ci kawam ba tey taahirun muy aji laab foofu kon moom ahsanu moo gën a rafet sopp nañu moom ci boppam dara sol bañ koo taq ndegam jàppandi na aw yaramam ay yéreem ak fa mu tëdd yépp set wecc lépp lu malaaka bëgg rek set wecc ak xet gu neex te lu malaaka bañ mel ni jigéen ju amee mbërëg ti sanguwut ak ko amee janaaba ti sanguwut ak lu mel ni ab xaj ak lu mel ni ab estet yu mel noonu bëgg nañ dara bañ faa jege lépp lu malaaka bëggul rek du fa am wa tax mën naa wa yustax bu def na sopp an laa yaqrabahu mu bañ koo jege xaa idun jenn aji mbërëg wala junubun du caajoon aji amee janaaba wa arqasa yolomal na baxdul xulamaa yi lenn ci way xam ne fil xiraat ci jàng ga dana aussi yi fa boppam bi suurati yaasin ci saaru yaasin walam yakun waaye nekkul daalika loolee amran di mbir maa am wol mu di muñ jëfee bi ci moom hinda malik li fa malik mu ne taamu nañu jamono yooyee muy toll ci waaj a génn àdduna nga toll fa boppam jàngal ko suuratu yaasin ndax la addis ba ne maa min mayitin yuqraw hinda rasihi suuratu yaasin illa hawwana allahu alayhi nee na kuy kuy faatu buñ ko jàngalee fa tolloog boppam suuratu yaasin faaw yàlla yombalal ko ay mbiram loolu moo tax nag ibnu habib moom day wax ne day topp hadis boobu sopp na loolu Maalik nag moom day sit ku jàngal kenn alquran moo xam njëkk muy faatu la moo xam gannaaw bu faatoo la moo xam ca armeel ya la moo xam du ca armeel gannaaw bu ñibbisee la moom daal sim na rek ku jàngal kenn alquran waaye lépp ci borom xam-xam yi dañuy maase ci ne jàngal gi alquran lu am am njariñ la lu mat a fonk la nga gis sax ci irwaaw nadim sëñ mag bi ne bi waajuram tolloo ci di génn àdduna foofee toog na fa bopp ba wàcc fa alxuraan moo ko nettali boppam moom daal ñu baax ñi moom maase nañ ci ne jàngal gi alxuraan am na njariñ ci bam tolloo ci génn àdduna ak gannaaw ba yépp yépp rek bañ koy suul la moo xam bañ koy suul la moo xam gannaaw bañ ko suulee ba noppi la ñu bari daal li maase moom mooy am na njariñ loolu te mat naa fonk bu baax a baax wala ba sa ayut bi bukaay ci jooy bi dumooxi ci ay rongoñ xii na isin ci waxtu woowee waxus nu taxal si waaye nag rafetu defel waxus nu taxal si waaye rafetu defelu ga maanaam dëgërlu ga wa tasabur ak muñ muñ lu ga ajuma lu moo gën a rafet li ma ñeel koo xam ne istataax attan na ko dafa wax ne bu tollee ci diggénn àdduna nag moom duñ bañ nga jooy jooy yu génnee rongoñ kese yam ci te amul kàddu sotti rongoñ moom wàññiwul dara ndax day wane yërmande rek moom te day tax xol bu giif rek li ñu bañ koy mooy yëkkati xaaju ci kaw ak daanu fi suuf mel noonu la ñuy bañ ndaxam sax nag nee na jooy ci rongoñ sax boo ko mënee bañ a def dëgër rek te muñ moo gën sax far sotti yi rongoñ bañuñ xaa def ne tere xam ni suraax yi walis xaaju wan niyaaxat ak déjjeetu maanaam nag di jooy ku faatu di xaaju ci kaw ak daanu fi suuf ak déjjeetu déjjeetu mooy dañ ko daan def di ko aw xewet aw jigéen dajaloo di neexantal seeni kàddu mel ni muus muy sab di ko neexintal ak di wax ay baaxam ak yooyu loolu mooy déjjeetu loolu araam na dañ koy aaye bu wér-wér wala sa fi xuslil mayit di mu nekk sang ab néew xadul ab limite walakin waaye yu naqaa def na ko seddal rek wala yu xasalate def ko sang wétaran ci tool bi maayin ci am ndox wa sidil akum ndéem wala yu xalate def def fil axirat ci ndoxum mujj ma kaafoorun gëttu kaafoor nee na ab néew bu ñu ko dee sang dañuy sang ba mu set rek am yéemukaay waaye nag sopp nañ ca ngaay ya tóol te it benn moom li mu tóol tóol daa néew bopp benn moom tóol na waaye daa néew bopp ñaar itam daa tóolantiku kon nag ñetti yoon moom baax na ba ca ngaayu njëkk li da nga koy fexee mu set rek moom moo xam ngay def ndéem mi mu wax bu fekkee ndéem mi jàpp na nga rukk ko ba mu nooy nga def ko ci ndox mi bu fekkee ndey mi jàppandi wut saabu mën na ko wecc waaye ca ngaa lu njëkk yow na ngay def ba mu set rek moom saabu boobu loo ci def ba mu set rek baax na ca ngaayal ñaareel la nga def ko lu mel ne ca ngaayal farata mooy ca ngaayal li nga xam ne moom ndox ma day mel ni ndox war a mel ci boo doon jàpp tey baa ngay sangu farata yi sa bopp du am saabu du am dara ko defee nga defee ko nañu nga defale ko nañu defee ca ngaayal farata rek moom da nga koy jàppal sax boole ci na ko wax léegi moo gën mu des ndox mujj bi ndox mujj bi nag moom da nga ci def la ko lañ bu fekkee ne am nga kaafoor gi mu wax baax na bu fekkee amoo kaafoor nga def ci benn let ko lañ boo ko am nga si beneen saab bu ne xet waaye moom daal ndox ma ci mujj moom ndox mu neexal xet lañ doon ko defee nag ñu sangu ko sang sang rek waaye bi ci digg bi daal moom cagaay lu ñaareel daal moom ngay fonk def ko ne cagaay li nga xam ne mooy loolu fardu kifaaya li nga sàmmoonteeg cagaay la ndox ma yépp mel noona
boo dee xool saraay nag moom dañuy wane ne cangaay lu njëkk la moom ngay def ndox mu sell mel ne ndox mi ñuy jaamoo yàlla sangu ko it ñi nga xam ne moom la ñuy sangoo cangaayal farata jàppaale ko defal ko lépp lépp ci cangaay lu njëkk la nun nag ni ñu waxee léegi mooy cangaay lu njëkk la moom da cee def saabu mbaa ndéem moomu ak lu ko mën a setal ba mu set rek bu ko defee cangaayal ñaari la nag moom lay fonk ndox mu mel na war a mel cangaay la doon cangaayul melaw cangaayul farata nin ko waxee woon léegi waaye mel na ne daal luñ ci def rek mu baax moo xam cangaay bu njëkk ba moo xam boobu ñaareel ba na ci am buñ jagleel melaw cangaayul farata ndox ma itam mel nañ taamoon ndox ma mel na cangaay la ci mujj nag moom nañ ko waxee woon rek dañ cee defal ko lañ ak lu neex xet ba mu neex a neex xet bu baax a baax
watu saru def na suturaal xawratuhu awraam maanaam ku mën di sang nit nag moom faaw da ngay muur la tàmbalee jumax ba ci bëtiwoom waaye doo ko def yaa mu neen di xool déedéet faaw nga ormaal sang la tàmbalee jumax ba ci bëtiwoom nee nañ nag bu fekkee dañ doon ñaar ñuy sëy moom muy jëkkër a jabar moom sang nga diggante boobu li sopp rek la doon waaye du àgg ci war waaye bu fekkee du woon ñaar ñuy sëy nag moom sàng nga diggante boobu lu war lay doon du ko mën a def du ko sañ a def bàyyi noonu yaramu neen di sang noonu déedéet ndax sañ naa àggale loxoom dañu bëgg mu jël lu mel ne ay gants wala sagar bu tal laxaar ko ci loxoom nga xam ne jëmmi loxoom du àgg ci awra yi ka muy sang am na lu ñu wax ne bu fekkee foofu dafa taq lool lool ba àggale fa loxoom mënta ñàkk mën na fa àggale jëmmi loxoom am ñu ne déedéet ndax du wéradee mën naa jullee noonu kon nag bu xasee faatu ba jëgal borom dong des ci te wërta àggale loxo foofa am na wute foofa wala tuqallamu deful lawi adfaaruhu ay wexem wala yuxlaqu deful wat shaharuhu kawaram wa yuxsaru def na bés batnuhu biram ba xasran ak bés rafiqan gu ndànk nee na ku génn àdduna kat kenn du lawi ay wexem kenn du wat kawaram suñ ko jëlee suñ ko defee nag moom dañ aaye woon ko buñ koy suul nañ ca boole weye ak kawar ga suulaale ko bëgg na nag bala ñu koo sang ñu bés biir bi ndànk bés koo xam ne lu waroon a génn dana génn lu wartoon a génn moom du génn ndax dañuy bañ suy sangee ba noppi dala génn ci sobe waaye nag bu ñu sangan ba àggal dala génn sobe itam du yàq cangaay la dañ ko raxas mu set rek du wàññi dara cangaay lañ ko defaloon wa in wut di andeem jàppaleef na ko wuddoo asalaati jàppam julli fa xasan kon aj rafet la bu ne xasan rek mooy lu ñu sopp la maanaam boo koy sang cangaay loolee nga boole ci defal ko njàpp mi ngay jàpp mi nga mi nga daan jàpp yow ci sa bopp boo dee dund jàpp mi ngay jàpp boo dee sangu cangaayal farata nga defal ko noonu moo gan wala sa bi waajibin waaye du aji war wa yoqala bu def na ko wëlbati li jëm bi jëm ci yetam nga fil xusi ci cangaay la asanu moo gën rafet way ut gis ndem di jëf na ko it dij ko mooy dij ko mu toog fa daalika loolee waasiun aji dagan la liñ gën a taamu nag mooy da nga koy tërale wetu ndey da nga koy tërale wetu càmmooñ boo raxasee wetu ndeyjoor ndax dañu sopp nga jëkk wetu ndeyjoor donc day ko wëlbati nag raxas wetu càmmooñ nga xam ne daal di ko wëlbati foo bëgg raxas rek wëlbati foofu moom gënal nga dij ko waaye boo ko dijee ba tey du ko tee baax waaye daal bañ ngee dij moo gën wala ba asaawit bi xas li ahadi sawjayni ci sangu kenn ci jëkkër ak jabar saaxibahu moroomam min xëyri darooratin ci lu dul lor daa wax ayut rek waaye lu ñu sopp la maanaam ñaar ñi nga xam ne loolu sëy bu kenn ko njëkkee faatu sopp nañ moroom ma sang koo kee faatu maanaam kay dund sang ka faatu bu dee ci góor gi moom Seydina Aliyu radiyallahu anhu ba soxna Fatima du génnee àdduna Aliyu ci bopp moo ko sang nga xam ne kon foofa góor ga moo sang jigéen ja ba tey Abu Bakarin as-Siddiq radiyallahu anhu ba mu génnee àdduna soxnaa ma ko sang xam ne kon lu ci nekk rek am nañ ca misaal loolu kon sopp nañ ko wal maratu jigéen tamuut dana faatu fi safar ci ab tukki laa nisaa dit ay jigéen maa xaati ànd ak moom wala ma xarama du caagéen ab aramante mel na rijaal ci góor ña fal yi yam mim na tiimal rajulun góor waccaxaa kanamam wakka fayxaa ak yaari tengam fekkoon ne jigéen daa faatu moo xam ci tukki bi mu wax la moo xam du ci ab tukki waaye daal jigéen ne moom di ko sang nekku fa ay góor doo nga fa nekk te góor ña kat ñëpp mën a sëy ak moom amu ci aramante kon genn góor du ko sang dañ koy tiimal rek kon jigéen ji faatu na amuñ jigéen di ko sang góor rek fi nekk te góor gi fi nekk moom mënoon nañu sëy ñoom ñaar du ñu araamante ñoom ñaar kon da koy tiimal kese yam ci te bu raayee kanam ga mu raay loxo yi ba ci tikku jara ya te bañ a jàll ba ci conc ya wala kaana doonte nekkoon almayitu néew ba rajulan di góor yemma ma kon tiimal annisaaw jigéen ña ba ci xewxew kanamam nga waye dex ñaari loxoom ilal mirfaqay ni ba ci ñaari conc ya ilam yekkul dem nekkut maaxu na di ànd ñoom rajulun góor yu xas ci loxo ko daan ko sang wala ma atum du caaginu jigéen min maharimihi ju bokk ci araamanteem bu fekkoon ni góor moo faatu ci béréb boo xam ne moroomum góor mu ko mën a sang nekk wa jigéen dong fa nekk te it jigéen ña fa nekk mën naa mën nañu sëy ak moom amuñu araamante waaw kon nee na ba tey benn jigéen day ñëw rek tiimal góor googu faatu waaye nag moom bu ko dee tiimal daañu ko may bu raayee kanam nga mu raay loxo yi ba ci conc ya liñ may jigéen ci góor may ñu ko woon góor ci jigéen te nga weesu woon ba góor gee tiimal jigéen ja dañ ko wax may ñu ko woon àgg ci conc yi tey nag moom bu fekkee ne jigéen mooy tiimal góor bu raayee kanam nga dana mën a raay loxo ya ba noppi jàll ba ci conc ya nga seetluwaale loolu fa in kaanat dem nekk na imraatum jigéen min mahaarim yi ji bokk ci araamanteem xasalatu mu sang ko wa satarat te mu suturaal awrata awraam bu fekkoon ni góor gi faatu jigéen nga fa joo xam ne araamante ne ñoom ñaar maanaam seen diggante mënuñu woon a sëy kon daañu may jigéen ji moom mu sang góor ga gis nga li ñu ko ca may daañu may jigéen ji nga xam ne ab araamante la ci góor gi mu daal koy sang tey sang la tàmbalee jumbax ba ci batiwoom ya daal di sang nag fekk mu def ci loxoom nag sagar wu tal daal tàmbalee bomb nag daal koy sang wa in kaana dem nekk na maxal mayita ci ànd ak néew bu jigéen ba du maxramin borom bu araamante xassalaha mu sang ko mi faw xi faw bi ci kaw malaan yastur moom dana suturaal jamiha jasadiha mboolem yaramam wax daa wax ne nag fekkee ne néew bu jigéen ba góor nga fa gu araamante ak moom ndax léegi nga weesoon mooy néew bu jigéen ba góor ga fa nekk araamante wuñu da ko defoon tiimal kese nga waxoon fii nag moom mooy néew bu jigéen bi ak góor a ngi fi goo xam ne araamante naa moom jigéen nekk fu waaye góor ga fa nekk araamante nañu kon dane góor ga da koy sang ci kaw mbalaan mu waaye loolu nga teylu ko ni waxee boo ko dee xool day mel daa bëgg góor gi sang jigéen ja ba lépp daj mu raxas ci kaw mbalaan moom mu ko sang déedéet day def lu mel ne sànke rek bu ko defee dugg ndox mi ci biir nga xam ne moom du gis mukk jëmm ji maanaam fi mu toll nii daal day fexe ba jigéen ji du gis jëmm ja dugal ndox mi ci biir nag ak loxoom fekk laxaar na ci loxoom nag sagar wu tal mbaa lu mel ne ak gan di bomb rek nag di sotti ndox mi bomb rek te du gis jëmm ji mën naa wàcc lu mel ne sànke bu tal tal jigéen jaa ngi ci biir mu dugal ndox mi ci biir di bomb rek waaye loolu daa mel ne bu fekkee dañoo bañ rek mu xool jigéen ja mais soo mais soo ko wax ne ngay takk say bët bi nga ko newoon takkal say bët rek léegi muy gën a gaaw xanaa kon. ndegam dañoo bañ rek ay bëtam tegu ci yaramu jigéen ja kon bu ñu ko newoon takkal say bët day mel ne kon muy gën a jàppandi ci moom. boo dee xool nag saraab alfawaaki fu dawaa nii moom lay andi di la wax naa la bi an yajxalahu alxaasilu baynahu wa bayna almarati min asaqfi ila asfal بحيث يسير نظره إلى الثوب لا إلى جسدها ويصب الماء من خلف الثوب ويجعل خرقة على يده غليظة فكما لا ينظر إلى جسدها لا يباشره بيده وإياك أن تفهم أن معنى ستر جسدها جعل الثوب على جسدها والحاصل أنه يجوز للمحرم مباشرة جميع جسد المرأة المحرم بعد تعليق الثوب المانع من نظره إلى جسدها وبعد جعل خرقة غليظة على يده وأنه يجوز للمرأة إذا غسلت محرمها الذكر مباشرة جميع جسده حيث لفت على يدها خرقة كثيفة وأما من غير قرقة فلا يجوز لها مباشرة ما يجب عليها ستره وهو العورة فقط أو جميع الجسد على أحد التأويلين في كلام قليل nga xam ne bu fekkoon ni jigéen mooy sang jigéen moom dana mën a jonjoon teeg yaramu jigéen ja du aajo woo muy def ci loxoom aw sagar mbaa gan mbaa dara lu koy nuru wa amma law ghasalat imra'atun imra'atan la jaaza laha mubasharatu jamihi jasadiha walaw bi xayri ha'ilin wa yustahabbu def na sopp an yukaffana bu dee ci sàng almayutu néew ba fi witrin ci tool talaasati aswaabin yetti malaan aw xamsat ni wala juróom aw sabaxat ni wala juróom ñaar te wamaa loo xam ne juxi la defeef na ko loxoo ñal ko min wasratin ci tubay wa xamishin ak mbubu wa imaamatin ak kaala fa daalika loolee maxsuubu lu ñu limaale la fii xadadil aswaabi ci limum malaan ya al witr ya di way tool dafa wax ne sopp nañ néew biñ koy sàng càngaaye tool benn moom tool na waaye daa néew bopp ñett baax na waaye li ñu gën a taamu daal mooy bu dee góor ñu def ko juróom mbalaan bu dee jigéen nag moom juróom ñaar da koy def juróom nag mooy li mu la wax ne la boo ko defalee tubéy ak mbubb ak kaala wala nga defal ko bu dee jigéen mbubb ak askumba ak muuraay da nga wëñuwaal loolu ci mbalaan ñu xam nga kon dañoo sof bu dee góor nga defal ko mbubb solal ko daal koy wutal kaala jàppe ko yaari malaan defal ko tubéy mu ñett bu ko defee nga ëmb ko nag léegi ci yeneen yaari malaan kon xam nga muy juróom wax ne nga defal nga ko mbubb defal nga ko kaal defal nga ko tubéy wàññi ko mu yett boo ko boo ko dellu ëmbaat nag ci yaari mbalaan nag waaw boo ko laxaaree ci yaari mbalaan ëmb ko ci biir nag mu daal nekk kon juróom loolu ñu sopp ci bu dee góor bu dee jigéen nag moom ñu sopp nga defal ko mbubb ak muuraay ak skumba ko defee mu nekk ñett nga ëmb ko yeenti mbalaan nag boole ci xam nga boole yeent yett moom mu juróom ñaar loolu ñu gën a taamu waxat bi kuffi na sàngee foon na annabi yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi salaasati aswaabin ci yetti malaan biidin yi dee weex saxool yi yet yi ko jóg saxool udrija yoo xam taxañeef na ko fii xaa ci ñoom idraajan ak taxañ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonante bi moom nee na dañoo boole woon yetti malaan yu weex yu yàbbe ca dëkk bu ñu wax saxool ci yaman foofu la bàyyi ko woon ñoom malaan ya ñu njëkk jël ëmb ko ca benn yoon dañoo laal rek yetti malaan noonu dal ko ci ëmb rek benn yoon dal koy laxaar rek noonu dal koy jébbal boromam noonu ko defaan wala bu asaawit ay yu xam masa bu dee fi mbubbal almayutu néew ba wa yu xam ma mata dee fi ko kaalaal loolu waxam na ko lay waaye koy baamwaa ngir leemu cay teg wa yam wax yi dana yell an yu xànnatu bu dee fi gëttal ko wa yu ju xalati dee fi def alxanuutu gëtt ga bayn ak faañ yi diggante ay càngaayam wa fii jasad yi ak aw yaramam wa mawaadihi sujjóot ak béréb sujjóot yi minhu ci moom nee na dañoo bëgg boo ko wutalee kaala wutal ko mbubb wutal ko tubéy mbaa bu dee jigéen askumba dañoo bëgg yére yi nga def la koleñ yére yi ci boppam nga def la koleñ nga xam ne boo ko boo ko defalee am malaan bala ngaa teg meneen da ngay def ci malaan mooma la koleñ mu dox diggante yaay malaan la koleñ dox seen diggante te yow bëgg itam yaram wi ci boppam nga taxal yaram wi ci boppam nga taxal la ko lañ bi nga xam ne masaa di sujjóot day laal suuf mel na jëbi ak bëti yi mu daan sukk ak baaraam yi mu daan samp ak loxo yi mu daan rëppeel fépp loo xam ne masaa sujjóot rek muy jëbi bakkan bi ñaari bëti yi ñaari loxo yi cati baaraam tànk yëpp dañoo bëgg nga def ci la ko lañ mooy taxal ci la ko lañ bi nga xam ne daa ubbi ko nag moom dañoo bëgg nga jël wëttéen taqaatale ko lañ ba noppi taf ko ci kaw rek noonu lu mel ne bët yi ak ñaar nopp ñi ak bakkan bi ak buntu suuf dañoo bëgg nga jël wëttéen nag suuy ca la ko lañ ba noppi taf ko ci kaw bañ koo noox ci biir mooy boo ko jéem a noox ci biir pax ma da nga koy taf ci kaw rek noonu loolu taamu nañ ko ba tey wala yu xasali deefu sang shahidu aji dee ci jihaar fi mu taraki ci xarewukaay ba wala yu salaati defu jullee alayhi ci moom wayu defam def na ko suul bi siyaa bi ak yéeréem muy ay malaanam nee na koo xam ne dañ doon yëkkati baatu lislaam di xeexal yàlla mu far ca daanu kon kenn du ko sang tayit bu fekkee lam soloon ci yére doy na ko sang maa doon doy na tey ko daal di jébbal boromam noonu rek du aajowoo sang mbaa sang yeneen yére mbaa dara dañuy jekki-jekki rek lam soloon ndegam mën na ko suuturaal moom ñu jébbal ko boromam noona bu fekkee lam yore nag daa defee dañ ko fekk mu defee ramu neen nag mbaa lam defee woon ci yére dañu ko càngaay nag kon ñu mottali ko defal ko càngaay wayu salla def na jullee xalaa xaa ci fi nafsi yi ci ajaray boppam korey boppam yaar la mën naa mu tey ko mën naa mu tëw ko su fekkee ne moom tëw ko daa juum rek moom mook kuréel boppam yemoo des na ko jullee te it nit ñu baax ñu mboole mën nañ faa teew du wàññi dara ba des na bu fekkee moo rey boppam ci kaw xaru rek rey boppam ci xaru nag moom ba tey des na ko sang sang ko jullee ko waaye dañoo bëggoon waa ju baax bañ faa teew mbooloom bari bañ faa teew yooyu fal rek rob ba noonu ndax boo légee kenn bañ def li mu def xam nga buñ fonkee rob ba nit ñu baax ñu teew fa te mel ni kon xaru jum xaru du dara te xaru dafa araam booy succee far kenn kon yooyu fal rob ba ñu baax bañ faa teew mbooloom bari bañ faa teew ñu jébal ko borom rek gannaaw buñ ko jullee waaye fal ko ndax kenn bañ def li mu def wayu salla def lu jullee xalaa man ci koo xam ne xatale xooree na ko alimaam ilimaan ba fii xaggin ci gétam aw xawadin wala fayantoo koo xam ne daa def ñu ko war a reye ni ki dafa njaaloo ñu war koo rey mbaa boog mu rey kenn ñu war a fay ci moom rey ko bañ def ko loola coow ko nekk julit mooy daañu ko sang sang ko jullee ko waaye nag moom itam bëgguñu waa ju baax teew fa mbaa mbooloom bari teew fa ndax dañuy bañ ëllëg kenn def li mu def moo tax mën naa walaa yu sol yi du jullee xale yi ci moom al imaam ilimaan ba daa mooñu ilimaan ba teew fa mbaa gaa yu baax yi teew fa mbaa mbooloo mu bari dañoo bëgg rek ñu woyofal rob ba ngir ñu bari bari bañ a def li mu defati boo liggéey walaa yut baaxu deeful topp almaytu néew ba bi mij marin ci ndabul xal ndabul xal mooy lu mel ne ab fourne wala ñu koy niru mel ne ànd ñu génne néew bi di génnaale lu def safara xam nañ caa jublu xir xir gu nga xaj ga neex loolu tàmmuñ ko ndax day mel ni gaat nga ko ñaaw daal waaw tàmmuñ ko wal machi dox ga amaamal janaasab ci kanam tàdd ga aftalu moo ban nee na soo dee gunge néew bi te bokkoo ci ña ko yore kon la gën mooy nga jiitu ñu topp ci yow ña ko yore topp ci yow bu fekkee da ngaa war naa mën nga topp ci gannaaw bala ngaa xatal ñu dox seeni tànk mbaa boog mën nga itam gaaw jiitu leen ni ki boo yore oto nga daal di gaaw dawal rek jiitu ji ca béréb ba toog fa di waxaar dañuy bañ rek boo waree ba noppi jaxasoo ñu dox ak tànk di leen xatal wala lañ ciy bañ way xam ne def na def almaytu néew ba fi xabrihi ci bàmmeelam ala shiqi ci wetam nga al aymani ngay ndeyjoor wayu sabute dee fi samp alayhi ci moom al labinu demblang ya muy móoli ban ya daa wax ne taamu nañ néew buñ ko ba tëral ci biir bàmmeelam mu tëdd wetu ndeyjoor te nga xaw ko geenal geenal bu yem da nga koy taf nag ba mu féete xibla nga xam du jël du jékki-jékki jàll rëdd ko da nga koy taf ba mu taxu ba jekk nga jël suuf sëkk ko ci gannaawam ba du jékki-jékki jàll rëdd ko waaw da nga koy tëral ba mu jublu xibla te nga jël suuf nag sus ko ci gannaawam ba nga xam ne léegi du jékki-jékki jàll rëdd ko dañoo aada woon na ñoom jël lu mel ne aw mooli ban di ko def ca bàmmeel ba mun nag fii ay bant lañ koy ëpp a def fii moom ñu ko faral def ay mool li ci ëpp ay bant la ñu def noonu wa yaqul dana wax nag xii na isin ci waxtu woowee ne allahuma yow buur bi inna saaxibanaa naka sunu àndaale bi xad na sala wàcc na gan bi nga ci yow wa xalafatam gannaawal adduna adduna wara azharihi ca gannaawam li gannaaw waftaqarte mu aajowoo ilaa maa jëm ci li nga xam ne xindaka nekk na fi yow allahuma yow buur bi sabbit yàlla na nga saxal xindal masalati fa laa jóg malaaka ya mantiqaw aw làmmiñam wala tabtarihi yàlla boo ko nattoo fi xabrihi ci bàmmeelam bi maa ci loo xam ne laa taaxata déet kàttan loxo di ko ñeel bii ci moom waaye xëq te yàlla na nga ko yéegal bi nabi ci yonanteem ba Muhammad te moo di Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daa wax ne nag taamu nañ bu fekkee yaa ngi tëral néew bi di samp bant yi wala ngay tëral bant yi ni ñu ko aadoo def fii benn yaa koy def mbaa yaa ngi teew ñu koy def daañu bëgg nga wax ñaan gi ñaan gi nag mooy suñu borom suñu waa ji day tey sagan la bàyyi na àdduna ñëw di sagan te aajo woon nga ganalee ko sa yërmande yàlla bu ko malaayka yi dee laaj yàlla nga ko dimbale ba mu tontu tontu lu leer te bu ko teg mukk ci biir bàmmeelam bi dara loo xam ne day metti ci moom du ko attan te yàlla nga ko àggale ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo xam yaa koy tërandoom néew bi ca bàmmeel ba ak a teg bant yaa yooyu moo xam ne ngaa teew rek ngaa teew rek ñu koy def daañu bëgg nga wax ñaan googu lu mu néew néew nga wax ko benn yoon wayu ko dafa def na sip al binaaw tabax alal xubóori ca bàmmeel ya warta ji siisuwa akub weexal seen maanaam bàmmeel nag moom tàmmoom ñu tabax ko rawante ñu tabax ko noppi di ko wees di ko weexal ak lasoo ka def rafetaay yooyu le ndax kërug àllaaxira rek la te sax maanaam ba ñu wax naa dayem ci doom mooy bu fekkee ne suuf sa yow yaa ko moom suuf ci sa néew waaye bu dee suuf soo xam ne moom daa am ku ko joxe ne nañ ci suuf doomi aadama yi daa am ku ko mooman joxe ko ngir mu ñu def ko armeel ba ñëpp ko bokk su boobaa ñu nangu yow ngay tabax ak a weexal bu ko loolu day xatal armeel yi
kon nag li mu wax a gun nii mooy sib nañu ku tabax bàmmeel waaye nee nañu sax bu fekkee dañ cey puukare woonte ku nekk bëgg gën a rafetle sa moroom mu daal di araam ba tey bu fekkee tabax yooyee jafkati njaaxum yi dañ cay làqatu dafa bàyyi koy defi seeni njaaxum ba tey mu daal di araam